xale yi bu ñu leen doon téye rek ci fo du sotti waaye nag foo dafa am lu muy àndal mooy dañ leen di tàggat itam ci wàllu xam-xam dañ leen di tàggat itam ci wàllu mën a ñu am jumtukaay yoo xam ne dañ ci war a mën a liggéey loolu mooy suñu yéene fii ci biir commune Merina Dakhar tey nag ma feggoo ak suma frère nga xame ni moom mooy parrain wu bis bi di euh, le ministre d'État Abdou Fall euh, itam ak suma frère. Euh, le président Makha Fall ancien président de la communauté rurale de Mérina Dakhar ñu xam ni suuf su su su su su taatee dañ ko jal kon nag ñun ñëpp ñu bëgg a dugal suñu loxo ànd ak président jàppale ko ba li mu bëgg ci xëyum xale yi mu man ko li mu bëgg ci développement réew mi ñu man ko ñu ànd ak moom gunge ko ba fi mu bëgg a yegg Sénégal mu yóbbu ko fa ci jàmm loolu laa amoon lu may déclaré. waaw stade bi xam nga dafa man lii. Euh, PNDL moo ñu joxoon moyens yi pour ñu clôturer ko mais stade état moo koy def léegi nag lancé nañu appel d'offre bi AGETIP dafa war a ñëw defar fi ay tribune ak ay services annexes loolu nag def nañu appel d'offre bi incha allah ci 2017 bi dinañ ko def réaliser ko mais diñ ko réaliser fii tam noonu laa bëgg ñu réaliser ko kel parce que dañu am ñaari dëkk yu mag yoo xam ne dañu boot ay dëkk kon nag am naa ñaari projet mooy def ko fii def ko kel mais au delà des stades dama bëgg ñu tabax ay maison de la culture dama bëgg xale yi su ñu amee ay mariage su ñu amee ay lu ñu war a def ci wàllu caada ñu am kër goo xamee bu ñu demee daje fa di ko fa def muy wàllu culture muy wàllu formation muy wàllu itam seen euh, banneex loolu ñu mën ko fa def te lépp nag ànd ak yar ak teggin euh, dëppoo itam ak li nga xamee mooy suñuy valeur mooy suñu diine loolu daal laa amoon lu may wax. mbégte rek sant yàlla euh, di bég si. Euh, teraanga gi nga xam ni lee tey jii ndaw mën na Dakar defal dañ ma ko bañ ma tànnee pour ma pare ne seen final bi xaw ma lu ma leen defaloon dëkk bi lu ma defoon si dëkk bi waaye liñ ma ko fayee moom weesu na ko euh, ndax teraanga moom euh, ku la ko defal deseelatu la dara surtout teraanga bu day nii nga xam ni final bi gën a mag. si dëkk dëkk bi si commune bi moom la ñu jël def ma parrain bi ma di si sant yàlla mais di si sant aussi suma frère ay meeru jing mi nga xam ni si sunu xaritoo ak sunu kóllëre la yàlla juree jur muy centrale bi ñu fi nar a tabax mais également jur diggante bu ratax bi nga xam ni moom la am ak dig ak population yi et en particulier ak jeunesse bi. suñ ko tey si suba. dañu dooree def forom forom boo xam ni fukki bëgg dëkk yi nga xam ni ak téeméeri dëkk ak fukk ak juróom yi nga xam ni ñoom ñoo séq commune bi ñoom ñëpp seeni kilifa teew nañu mag ñi teew nañu jigéen ñi ak ndaw yi li ñu sabaloon waxtaan wi mooy xool ak an ña ma àndaloon ñi nga xam ni seen liggéey mooy fexe ba dugal solaire bi si biir kër yi kër gu nekk mën am solaire am dëkk bu nekk ñu mën fa def lumière boo xam ni day aar nit ñi ci euh, ci seen sécurité pompe yi ñu mën ko installer si forage yi ak ci teen yi pour ni ñi mën see mbay mbayum noor ak euh, mbayum mbayum mbayum noor donc loolu yëpp waxtaane nañ ko te am nañu yaakaar ni incha allah ak jàppale maire bi ak jàppale gouvernement ak jàppale président de la république li ñu mbëbët pour ba dëkk bu nekk courant dugg fo yàlla mën nañu ko defal